ensemble dans la magie de eSport TV gars l'actualité en continue. Actuellement, bi ñu fas qui est Edouard Diol Koumba mi Mendy actuellement toujours dans la galère wax ci Diouf actuellement moom mi ngi xalaat équipe nationale du Sénégal ak aussi Mori Diaw gars yi Tay, gardien yi la ñuy Mais mais laata boobu nag gars yi dañuy wax ci nga xam donc lii di sunu lamb wax ci nga xam nag xët mu njëkk ñëw ne le défi de conserver son invincibilité madame. Reug Reug ci li nga xam donc lii di arène bi ba léegi amagul défaite loolu daal la wax wax aussi ci nga xam mooy Bombardier ak Lac 2 mi ne ñoom daal duñu indi ay support supporters yu euh, bëri loolu daal la waa yéen a kaay suñu lamb daal di wax stade ñëw wax ci Liverpool Real de Madrid affiche emblématique gars yi ñoom ñoom ñu war a wax aussi ci nga xam mooy donc Edouard Diol Koumba mur de Gorée bi nga xam ne aussi gars yi fi mu ne nii ñu ngi wax waxam par rapport li nga xam ne nag mooy donc lii di donc retour li nga xam ne nag mooy gars yi mooy ñoo ngi ci beneen yéene kaay muy nag xam nag yu sport ah suñu yi ñoom ñu wax ci nga xam ne nag mooy donc Alexandrie pour la qualif wax ci suñu gaynde yi nga xam ne mooy wàllum basketball bi nekk fa 23 Mundo Deportivo wax ci nga ma nag mooy ko kii di Ansu mune mu ne Quiero dama bëgg dess du côté donc du FC Barcelone ay ati ati encore ci kanam loola dal Ansu yi dal yi wax le joueur numéro 10 des Blaugrana en NBA gam na mo mooy Jason Statham nak mom la première fois bi muy ñëw All Star Game c'était bi nga xam moy donc Chicago la 2020 nee bobu nonu ki nga xam moy donc Kobe Bryant mom lañu tànn mu MVP nee bobu légui da koy fatali mu mune motax nak il fallait que mu dem séti jëli mom MVP ci All Star game yi suñu gaynde nag démb ñoom ak Thaïlande ñoo doon daje li nga donc jongante xaritoo ci football jigéen ñoom daal ñoo daal di témbo un bi partout Eva Neymar euh, Sénégal donc tamit li nga point du nul bi ñu leen aussi jaajëf parce que aussi euh, ñu ngi progressé bu fekkee ne egguñ fa egguñ ñu ngi progressé suñu gaynde jigéen ñi li beneen insolite bi nag mooy kii di Ángel Di María Mexique but nga xam ne Messi chaque fois day trouver solution moo tax mu daal di dugal bii bu ni mel ne amul morom benn la fi daal di wax ki nga ne également nag gars yi moo ngi nii xale bu jigéen ki jox Pedri këyit bi gars yi ah di fotow ki doon ki doon sax faram la <laughs> gars yi daal doy nañu waar quoi sama sama sama mbokk yi gars tamit mooy Aurelio De Laurentiis moom dañ euh, na ñooñu nag supporter dañoo équipe bi mais ñoom ci ay virtuel ay jeux virtuel la ñu xalaatee moom nee na supporter ay jeux virtuel la ñu xalaatee ñoom dañu yaakaar football nii la mais moom xamoon na gëmoon ne équipe am dina sori Liverpool xamante ni choc entre également est moy donc Jürgen Klopp ak Ancelotti gars yi fatali fàttali Liverpool euh, depuis donc Klopp nekk ba gagné goul ki nga xam moy donc Real de Madrid donc tay peut-être que ce sera la première fois donc affiché yaa ngi ni ce sera Liverpool Real de Madrid à temps Francfort Naples les donne

pour def xaalis ci boy bi ki nga xamne également nak mom ngeen di gis ni ah, donc gars yi euh, Werner mom nee euh, Real kii ni xam Chelsea donc neena Chelsea sera toujours ben club spécial pour moi. même bu fekkee ne jóge na fa et que yakaron wala li Chelsea yakaron su moom mujjuta am mais dal neena club spécial lay mos a doon ci mom ki nga xamne nak également moy André Santos mo wax naa leen ñaareelu yoon Chelsea déposé pour ñu may ko licence mëna football ci club bi waa Angleterre bañ mom nak dañ koy aalewaat Palmeiras foofu lay dal di delu tok fa du dee sax Santos plutôt

une française ñaari joueurs yi Nico Nico xam ngeen ko joueur wa Barça la Masia bi la génnee donc ñu daal ko koy àll tamit fa nga mooy donc ci Valence mom bokku na ci joueur yo xam wa Barça dal duñ ko jaay parce que Barça amna na joueur yu bëri yo xam ne euh, ñoom tey dañ leen abalé abale nee joueur yi ñu abale ñepp ñepp ñepp ñepp ñepp bëgg nañ leen jaay bu mu dess ñaar muy ki di Nico ak ki ngeen gis ni di Abdé Abdé bi nga xam nak mom donc dafa jël nationalité marocaine donc li mo nga xam ne mi ngi jouer ak wa Maroc nga xam tay il est très en forme ñoom ñaar dal nek na joueur yoo xam waa Barça nee nañ dañ leen a bëgg sax indi de woon pour ñu daal di ñëw ci équipe bi parlons du Maroc ki nga xam mooy Walid Regragui moom fukki fan ak juróom benn gars yi lay fas yéene génne listam ci weeru mars ah le 16 mars lay génne listam par rapport ak ñaari confrontation yi am donc euh, le 25 ak le 28 le 25 contre ñi nga xam mooy donc Brésil la le 28 contre ñi nga xam donc mooy également équipe bu Pérou Sénégal nag dinañ leen ci jox lu leer gars yi incha allahu rabbi champion nag première partie saison bi au niveau du championnat sénégalais waa Casa Sport la ah, cette victoire deux défaites quatre matchs nuls 17 buts marqués donc cette euh, victoires yëpp 6 à domicile la ah am donc benn la ñu am à l'extérieur donc nul ñaari defar yëpp à l'extérieur la donc trois nul yi boo xam tamit à l'extérieur lañ ko am ki nga xam ne aussi nag mooy donc ci di Edouard Ndiol ko moom ñu dogoree Mendy xam ngeen ko donc quatre jours maanaam juróom-ñett fukki juróom-ñetti fukki euh, fan mi ngi nii Edouard Mendy boobu léegi entraîné wul donc situation nag commencé yàgg donc Edouard Mendy pour mu bokk sax si regroupement mars bi du nekk donc Aliou Cissé devra faire appel à d'autres gardiens on espère également dina woo gardien yu bees njortees nañ ne am na ñuy ñëw donc Edouard Ndiol ko moom ñu dogoree Mendy nga xam nag dafa war a ñëwaat tabaxaat kawam parce que loolu la ñuy xaar ci moom et loolu la ñu ko yéene mu ñëw dellu si ci équipe ci ñooñu xam ne Aliou peut-être mën na leen woo. bokk na ki nga xam ne ngeen di gis ni gars yi kii mooy Diouf Yehvan Diouf actuellement gars yi moom c'est le meilleur gardien de la Ligue 1 française actuellement c'est le meilleur gardien bu ñu xool statistique am en matière d'arrêt et tout c'est le meilleur gardien moom nag il a la possibilité de jouer pour la France et pour le Sénégal nee na nag actuellement am na mi nga xalaat quoi nee na lépp dina ñëw à temps nee na lépp na ñëw ah, donc moom nag nee na moom France Sénégal dina jéem a xool option bi gën a baax ci moom donc Sénégal nag moo war a jug gis ngeen ko moo nekk ni fi ne nii pourcentage nombre d'arrêts les plus décisifs Yehvan Diouf moo nekk ci kaw kii di Modou Diaw nag nekk à la septième position donc aujourd'hui le Sénégal a la possibilité teel a gaaw jël boy bii nii parce que boy bi il est excellent il est excellent parce que nekk meilleur gardien aussi ca Ligue 1 française de wane également et aussi il est en forme te man jàpp naa ne fu ñu war a mooy wooy Alfred Gomis je n'ai rien contre Alfred Gomis mais boy bi mi ngi mi ngi au niveau mi ngi Ligue une Alfred Gomis dellu na fa nga xam mooy donc ca série B la dellu donc aujourd'hui également kii di Mori Diaw bi dañ ko war a jox chance am man boy bi dama yàgg wax ne boy bi dafa waroon dem sax mondial bi parce que tey équipe nationale dafa soxla concurrence dafa soxla fraîcheur dafa soxla également boy yu mën gar góolu boy bi dafa mën a góolu sincèrement c'est le gardien le plus qui a fait le plus d'arrêt bu dee wàllum arrêt rek moo ci ëpp lu mu def arrêt ki nga xam mooy Mori Diaw te aussi ci club bu ndaw la nekk muy clairement mais mi ngi Ligue 1 clairement mi ngi Ligue 1 te clairement tey bu eggee benn niveau bi c'est parce que derrière il y a ki nga xam ne mooy donc Mori Diaw comme Reims également il y a un certain ki nga xam mooy donc Yehvan Diouf donc ñoom jot na na gars Sénégal ñu bàyyi naan non li ancienne yi wëg li nañu jël équipe bi yëpp bu ñu amoon cent joueurs nañu def concurrence xool ku gën a aay ñu dugal la bu la joxee benn match ñaari match teg la si condition doxoo ñu def keneen parce que concurrence mooy tax suñu joueur yi gën a mën a dem kanam gars yi c'était toujours un plaisir de vous donner des informations woy leen di like surtout gars yi woy leen di like di bës like bi saa yoo xoolee vidéo like leen parce que mooy tax ñu partager vidéo yi gën ko vulgariser on avance ensemble gars yi jaa ngeen jëf